maa ngi nuyu mbooloo mi ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw balaa may tàmbali maa ngi wax Cheikh Moussa ne ko Abdul Malik wala ñu ne doomam dafa ñëw ba ci kaaba gi mu fekk Zeynul Abidin nit ñi niñ ko waree tam mooy buuri jullit ñi nit ñi faalewuñ ko mu laajte kii kan la te moo ko gën a xam benn waxkat wax wax ci wax ju rafet ne fa antaqa allahu alfarazdaqa yàlla moo wax loo farazdaq mu wax ne hada ibnu fatimatin hada alladi taarifu albatxaa watatahu xasida bu gudd wal baytu yaarifuhu walxillu walxaramu mi ngi teew ak moom moo tax mu ishaara ko lil qarib dama bëgg laajte nag lu tax bàyyi ci naa la tijaani bu doon cheikh bàyyi di jàng léegi mu ne haada bnu fatimatin bàyyi nañ ko foofu ñu sant yàlla bu baax di ndokkeel mbooloo mi yëpp ci jotaay zikkar yi ci teewaay bu mel nii di nuyu sang yi fi toog yëpp di gërëm maam alxaaji muntaqa ci cërale bi donte ne yolloowuñ ko ndax ñun xamuñ mënuñ waaye yàlla subhanahu wa taala mooy jël mbir def ko ba mu baax rek mu askanee ko jàmbi waaye ci xaqiqa ñun xam nañ ne li am yëpp yàlla ko amal kon lu rafet rek ci moom la bu ñaawee nag ñu ñoo sol suñ bakkan yi rek di dox pour mu ñaaw yal na yàlla rafetal ko ñi fi tudd yàlla ñépp maa ngi leen di nuyu di leen xaasal ngërmande ak ñi fi teew ñépp ndax dëgg-dëgg jotaay bi niñ ko waxee jotaay yàlla la waaye tey dafa am beneen dolleeku bu ci am mooy ne mënoon nañoo toog suñ kër yi daaw lu lañu waxoon ne mënoon nañoo toog suñ kër yi zikkar ñun kese waaye ñu amee ko ci mbooloo tey nag jotaay bi moo gën si kër yi ñu naroon a def yépp te loolu waxi baay moo ko dëggal ndax baay moo wax ne wa aleykum bil muhaadasati fi chani alxatmi tijaani ma ahbaabikum fa hiya afdalu min jamii al awraadi wa xusuusan fi ramadaana maa ngi leen di dénk ngeen bëri lu ngeen di waxtaanee Mawlaana Cheikh Tijaani ak seeni soppe ndax waxtaanee Mawlana Cheikh Tidiane moo gën mboolem awraad yi rawatina nag bu nekkee ci weeru koor xaddis sama bilmaxaasini minhum falxadiisu lana nadiimu nufuusi wa ida ma suqita minha bi kasin zaala anka min alana kulla buusi nañu waxtaanale bakkani jaloore gaañooñu ndax waxtaan yooyu mooy wéttal suñ bakkani buñ la ci nàndalee benn kaas rek lépp loo xamante ne loolu la waroon a indil tiis la ak njàqare dafay denc yow moo tax rahimallahu aba madiana ba muy wax ne wa naxyaa bi dikraakum ida lam narakum wala inna tadkaara al ahibati yunishna falawla maanikum taraha qulubuna ida naxnu ayqaadun wa fi nnawmi wa fi nnawmi wa fi nnawmi in mitna la mitna hawan min bacdikum wa sababatan walakina fi lmaana maanikum wa maana يحركنا وجد إليكم وإنا على ذاك الحب معنا فقل للذي فقل للذي ينهى عن الوجد أهله فقل للذي ينهى عن الوجد أهله إذا لم تذق معنى شراب الهوى دعنا يحركنا ذكر الأحاديث عنكم ولولا هواكم في الحشا ما تحركنا أبا مدين دفا وخنه bu ñu leen gisut ñu ngi leen di fàttaliku di dundee ci loolu ndax fàttaliku soppe yi mooy li nga xamante ne mooy dundal suñu ruux yi bu taxutoon seen maanaa yi kaw yooyu nga xamante ne suñu xol yi mi ngi koy gis di ko teewlu heure bu nekk bu ñuy nelaw ak bu ñu eewoo tarak cofeel danañu rey waaye ci dëgg-dëgg ci suñu maanaa seen maanaa yi tamit mi ngi teew ak ñun waaye nag yuharrikuna dhikrul ahadisi ankum dafa am lu ñuy yëngal mooy buñ toogee di wax ci yéen te bu taxutoon cofeel bi ñu am ci yéen dara mënuñoo yëngal kon nag nañ xool gaa ñi nga xamante ni buñ ñu gisee ñuy jeexi jeex yi ngir suñuy tarak mbëggeel ñi ñuy aaya nañ leen wax ne fekkee ñoom naanuñ ci kaasi mbëggeel bi nañ ñu bàyyi ak suñuy xaal moo tax waxtaanee góor yàlla yooyu dafa nekk loo xamante ni si luy dundal xol lay bokk udkur xadiisa saalixiina wa sammihim fa bi dikrihim tatanazalu raxamaatu waxdur majalisahum tanal barakaatihim wa xubuurahum zurha ida maamaatu fàttalikul waxtaani gaa ñu baax ñi tudd leen ndax tudd leen sabab la ci yuy tax yërmande yàlla wàcc buñ fi nekkee teewal seen jotaay mi ngi nii danga am seen barke ngir loolu bu ñu fi demee ba nga xamante ni seen zaatu xissi bi jugee fi demal nga ziyaare seen bàmmeel loolu lépp ay xéewal la te ñaar ni ñu war a waxtaanee tey mooy mbëggeel bàyyi Cheikh Tidiane ànd ak ne man mosuma dégg thème bi sax xam naa ne gaañu fi ñuy déggee sori na lool mbëggeel bàyyi ci yonent bi rek laa mën a dégg waaye loolu beneen dars bu bees la loolu lu jar a waxtaanee la ndax bàyyi radiallahu anhu bëgg Cheikh Tidiane loolu dafa war ñun ñi boole leen ñoom ñaari ñëpp bëgg leen dafa war ndax yàlla moo leen njëkk a bëgg yàlla bu mu leen bëggee nag ñun amatuñ ngànt yàlla la wax ci alquran inna allaha yuhibbu tawaabiina wa yuhibbul mutatahirina kenn mun naa génnee ci tawaabiina Mawlana Cheikh Tidiane kenn mun na koo génnee ci mutatahirina kon amuñ benn sikk yàlla bëgg na ko kon ñun lu ñu war a def ba dee wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinina kon Cheikh Tidiane dëgg-dëgg ci muhsinina la bokk kon bëgg ko lu war na moo tax bu ñu waxee nañu waxtaan ci mbëggeelu Baay ak Cheikh dañuy gis ne mbëggeel bu war la boo xamante ne dañ cee war a taxaw rek dem te jaam bi dëgg-dëgg buy bëgg dafa war a bëgg li jara bëgg ndax bëgg loo xamante versement rek la lay bijjal ëllëg loolu boroom xel waru koo def borom xel waru koo def mbëggeel nag borom xam-xam yi wax nañ ci lu bari ku nekk firi jàpp ne lii lay mbëggeel di firi waaye am na ku ko firi firi bu gën a jege mooy innahu taalluqu alqalbi bi cheyin ala wajhi al istinaasi bi qurbihi wal istixaashi min budihi mooy xol bi aju ci dara aju goo xamante ne saa yu ko jegee mu wéttalikoo ko waaye bu ko soree rek mu nekk ci njàqare goo xamante ne kenn xamul nu mu day loolu mooy mbëggeel bëgg wàll wi dafa war ibnu buna wax na ci téeréem wasila ne wa xubbuna alwaliya mimma wajaba charan wa fi duaaihi falnargaba fa kam yunaalu alafu min barakatih kama yunaalu alhadyu min ziyaaratih bëgg bi nga xamante ni dañ koo war a bëgg wàllu yàlla yi bëgg la boo xamante ni dafa war te war nañoo xemeem seeni ñaan yit ndax bëri na bu nit ki demee ci moom amee ci sëb barkeem njëggal yàlla subhanahu wa taala ndax xam ngeen ne xam ngeen lu ci ziyaarante ngir yàlla waxuma la nga ziyaare wàllu yàlla bu am jago waaye ñaanam tamit mu nga cee amee jub te fekk ne nekkoo woon ci njub kon benn mooy ne mbëggeel wàllu yàlla yi dafa war te xol bu wér ñoom rekk la war a bëgg xol bu wér ñoom rek la war a bëgg ndax mbëggeel buntu la boo xamante ni li muy indil njëriñ taalibe bi kenn xamu nu toll danañ ci yegg Baay radiyallahu anhu dafa wax ne fa mahabatu lmuridi fa xubbu lmuridi lilmuqaddami laa li daatihi bal li cheikhi kama anna xubba alcheikhi laa li daatihi bal li xubbina li mawlaana rasulillahi sal allahu alayhi wa sallam wa xubbuna li mawlaana rasulillahi sal allahu alayhi wa sallama li mahabati mawlaana jalla wa ala alxaafid alraafici alqaabid albaasiti kada wa maa daama alabdu yuxibu siwa maa dukir fa li maradin fi qalbihi mu ne taalibe bi mbëggeel bi nga xamante ne mi ngi koy am ci muqaddamam du jëmmi muqaddam bi rek a tax waaye jëmmi Mawlana Cheikh Tidiane mbëggeel bi ñu am ci Mawlana Cheikh Tidiane mbëggeel bi ñu am ci yenantu bi moo ko waral bëgg bi ñu bëgg yenantu bi sallallahu alayhi wa li ko waral mooy bëgg bi nga xamante ne moom lañ bëgg yàlla mu ne taalibe bi nag li fekk mi ngi bëgg leneen lu dul yi ma tudd nii mu ne feebar la ci xolam moo tax moo waxoon ci la adab fa laysa lil muridi gayra dal wali maa rasuli summa mawlaahu ma daama gayruhum bi qalbin laa yanaal maarifata al mawla aqulu bi irtijaal li yaa ngi xool ñeneen ñu dul ñi mu xam yàlla wax ma ne ko am de waaye du gaaw de doo am sax kon buñ bëggee ñi dañoo bëgg ñoo xamante ne dañ leen a war a yoon wi li ci gën a mën a jëriñ taalibe bi mooy mbëggeel bi nga xamante ne mu ngi koy am ci xolam bi te mbëggeel boobu mooy indi dëggu te bàyyi wax na ba tey ne wa bi qadri sidqi yakunu zafaru bil matlubi kem sa dayoo dëggu sa càkkuteef noonu nga koy amee in chita annaka tadfaru fa kun fi xubbika saadiq boo demee ba nga xamante ne bëgg ngaa jot say mbooleem càkkuteef li nga war a njëkk a def mooy nga dëggu ci sa mbëggeel an saaqi azmika shammir wambud jami al alaiq nga fagaru nag jéega ànd ak takkute sànni yi nga xamante ni mooy kiiraay ak yi nga xamante ni moo nekk lu lay gàllankoor ci yoon bi yëpp te mbëggeel bu amee rek mbëggeel dana dindi gàllankoor yëpp sa bàyyi waxoon na bu yàgg kem sa mbëggeel kem sa dëggu noonu ngay daggee yoon bi ñii ñu koy dagg ci saa ñi ñu ngi koy dagg ñi ngi koy dagg ba mu jeex Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu mooy jàngale taalibe bi nu mu war a mel taalibe bi dafa war a bëgg sëriñam comme moom bu taxawee ne Cheikh Tidiane mooy sëriñam comme bu ñu waxee ne nañu wax ci mbëggeelu Baye ak Cheikh Tidiane loolu war te nekk lu garaaw Baye moo wax ne bi qadri ma tuhibbuhu tanaalu amdaadahu fal qawmu haada qaal ba tey Baye moo wax ne laa yunaalu ma indana illa bisidqi walmahabati li nekk fa ñun mbóot yi ñu làqoo yépp kenn mënu cee yegg lu dul ne dafa bëgg ba pare dëggu wal ictiqaadu in yakun xaqiqi inda al muridi saaliki tariqi fala yara fi tariqihi maa yadur comme ni ko sukkeeri ji waxee woon dëggu xol bi bu amee gëm bi taalibe bi du gis lenn loo xamante ne mun na koo lor mm-hmm. te bàyyi loolu la waxoon Seydi Ali ne fa bil ictiqaadi yasluxu batinul muridi oh. kon taalibe bu bëgg ay maqaama yoonam bu njëkk ci loolu mooy mbëggeel bi nga xamante ne am na ko ci sëriñam ñu bëri nag dañuy wax lii mooy mbëggeel benn waay dafa wax moom walaysa walaysa min sababin lil xubbi aarifuhu walaysa lil xubbi bayna snayni tafsiru lakinahu nisfu naxwa nisfi munjadibun taquudu hada ila hada almaqadiru mu ne moom daal xamut lenn loo xamante ne mun naa sababal mbëggeel te ñaar ñu bëggante mu ne loolu amoo ci benn loo ko mën a firee lii moo tax mu bëgg ko waaye daal lu mu xam daal mooy ne mbëggeel mooy sax xaaj dem ci xaaji keneen ki déedéet mbëggeelu baay bi ëpp na loolu maani abil abbaasi afna al maaniya la wax wa afna maani shawqihi dal muaniya aba shawqu illa an yakuna mulaazimi wa tannaba xatta sirtu sakraana saaxiya lépp la faar bu faaree lépp kan moo fa mujj nekk kon mbëggeel boobu dafa bañ ne lu dul ne dafay sax ci moom kon Baye radiallahu anhu bu waxee ne taalibe bi bu bëggee jëriñu il faut mu bëgg comme moom bu ñu demee ci moom danañ ko fekk ne bëgg na ndax mu ma waxoon ci benn xasidaam bu yàgg nga xam ne man sax gisuma xasida bi fenn waaye fekk naa ko ci sama papa mi ngi ko tënk ci yi mu jëlee ci Cheikh Omar Fati Diallo di wax ne fa ana al muridu li cheikhina wa malaadina shaat manaqibuhu allati lam tu'dadi man may sama taalibe suñ maay taalibe suñ sëriñ bi Cheikh Tidiane mi nga xamante ni ay jikkoom yu kawe siiw na siiw boo xamante ni danañ ko compter waaye kenn du ko matal kon moom ci buntu muridiya mu nekk taalibe danañ ko fekk dëgg dëgg war naa dundal mbëggeel ni mu waree te loolu mooy buntu bi nga xamante ne mooy jëriñ ndax an nafu taabiun lil xubbi wal ictiqaadi njëriñ bu nekk ci diggante taalibe ak sëriñ mi ngi aju ci kaw gëm-gëm ak mbëggeel moo tax euh, ibnu abba waxoon ne qadra almahabati yakunu nafu wa qad yajiu ithra xafdin rafu kem dayoog mbëggeel kem dayoog njëriñ nit nag mën naa dem ba kawee ngir mbëggeelam mbëggeelam wàññeeku mu dem ba suufee mooy rekkeeku yàlla ci yàlla musal kon Baye radiallahu anhu bu ñu fekkee muy oote mbëggeel te wax nañ ci mbëggeel wàll wi dafa war mbëggeel lu muy firi ak naka lay indee njëriñ kon boobaa liñ ci war a déggee rek mooy taalibe bu bëgg a jëriñu rek ñu foog mu bëgg ñu xool nag Baye lan la wax ci mbëggeelam ak Cheikh Tidiane ndax mbëggeel boobu moom moo ko firi balaa ñuy wax Baye lan la wax ci mbëggeelam Cheikh Tidiane ñi xam Baye lan la jàppee ne loolu la mbëggeel Cheikh Tidiane di jëriñ boo demee ci saxiix lu mu wax qutbu aqtaabin raisun mufradun laa man yudaani wa huwa miftaaxu ilaahi xubbuhu fatxu ljinaani xubbuhu fatxu muridin xayru maa yajnihi jaani aqtaab yëpp mooy seen mooy seen njiit ndax moo leen doon tëbb balaa dara di xew moom it dul aqtaab bi min badi alxalaayiq lil oxra bihim bihi ammahum izzun wa ikbaaru comme ni mu ko waxee ci la tiba lil ayshi saxal ko ci fu bëri boo demee ci Conakry dem na ci benn dëkk mu ne ba mu fa yeggee ñooñu ay taalibe Abdul Qadir Jeylaani lañ xamuñ ko xamuñ tëbbam waaye xamuñ ne moom sëriñam mooy tëbb Abdul Qadir Jeylaani wa saari yaa sallaytu fi masjidihim maa arafu mumiddana min jahlihim lakinnahum azaw ila aljiliyi madaduhu min bahri dal wali julli naa seen jumaa ji de waaye xamuñ ki ma tëbb te ko kuy tëbb seen sëriñ muy Cheikh Tidiane moo tax balaa mu fay génn rek nee na gis na Cheikh Tidiane mu won ko benn muqaddam boo xam ne muqaddam yi Abdul Xaadir Jeylaani la ne ko demal nga indil ma ko mu topp ma nekk sama taalibi ah. raaytu cheikhana tijaani saara yaqulu aatuni bi nanga saara lim jiital sax mooy cheikhu tariqatin wa kaana qaadiri axada anni alyawma fi konaakiri yudaa bi nanga saar wa huwa alamu qaddamtuhu xiinan li sirrin alamu raaytu cheikhana tijaani saara yaqulu aatuni bi nanga saara waljili min waraina bi adabin fa qultu nanga naxwa aali lmansibi gis naa boo xam ne sëriñ la woon ci tariqa hmm. xaadiri la woon jàpp na ci man ci Conakry Ndongo Sarr la tudd mu ne xamtuwaay la kuñ xam la ma taqdimal ko ci sens yi ndax bàyyi li muy wër mooy ñi nga xam ne bu leen defaree rek ñi defar ñu bari mu ne ma gis Cheikh Tidiane ma indil ma Ndongo Sarr jii mi ngi topp suñ gannaaw ak teggin bu mat sëkk kon bu waxee ne Cheikh Tidiane mooy tëbbu ñëpp dañ koy dañuy jàpp kon mu ne xutbu aqtaabin raisun mufradun laa man yu daani kenn du ko jege ci maqaamam boobu déedéet mënta nekk waaye woo miftaaxu ilaahi xubbuhu fatxul janaani mooy caabi yàlla gi mbëggeelam mooy li nga xamante ni mooy tax taalibi bi dagg maqaama yi ngir yegg ci xam yàlla comme ni ñu ko waxee sànq ci rox la dem xubbuhu fatxu muridin taalibe bu nekk li ko mën a mayal fatxu te bàyyi wax na wal fatxu la dal ayaani wa innama alfatxu la dal ayaani tarku kama siwaahu bil iqaani boo demee ba raafal lépp loolu mooy fatxu ci gaañi moom firee na ko feneen ni mu ko déggee du suñu waxtaan mu ne xubbuhu fatxu muridin waaye xoolal lim ci teg xayru ma yajnihi jaani nit munut fàggu am witt lu mel ni mbëggeeli Cheikh Tidiane radiallahu ndax mbëggeel la boo xamante ne mbëggeel yu bari la dajale ci biiram kon Baye bu ootee nit ñi ne mbëggeelu Cheikh Tidiane nii la war a mel comme danañ ko fekk moom mu bëgg Mawlana Cheikh Tidiane ndax aleykum bi xubbil xatmi wasaaw li dikrihi furada wa mathna wasmaaw kulla masmaa yi la waxoon na ngeen bëgg Mawlana Cheikh Tidiane na ngeen rëj-rëjloo ci tudd ko comme jotaayu tay bii te wax na li ci nekk moo tax ma ne moo gënoon ñu toogoon suñ kër yi ñu ñëpp di wirdu waaye nag wasmaaw kulla masmaay bu dee moom noonu la déggee mbëggeelu Cheikh Tidiane te moom lu muy oote ci lu baax daf koy njëkk a wane ci boppam ndax moo waxoon ci benn leetar yéen muqaddam yu mag yi gërëm naa leen waaye maa ngi leen di digal ngeen di gàgganti taalibe yi di leen jubal di leen wan yoon waaye ci charte bi mooy lan yéen ñëpp bu leen digle lu baax lu dul ne yéen ci ba hmm. bu leen tere lu bon lu dul bàyyi ngeen koo ba pare comme moom bu ñu waxee ne aleykum bi xubbil xatmi dañuy xam ne dugg na ci lim la waxoon ne jarabtu amal al xayri kullaha mbooleem jëf yu baax rek essayé def ci ay tafsil te mbëggeeli Cheikh Tidiane ci amal al yooyu la bokk ndax bu mbëgg Cheikh Tidiane li tax ñu bëgg ko mooy mbëggeeli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh lu tax ñi bëgg ko lim doon la moo tax bàyyi saa yu waxee mbëggeelam Cheikh Tidiane dana wax sabab bi jàngal xasida bi sànq xatmul wilayati sultaanul wilaayati baabul lil wilaayati miftaaxul wilaayaati lidaaka himtu garaaman min mawaddatihi taataaduni zafaraatun kulla awqaati mooy xatmul wilaaya moo kaste wilaaya moo benn sikk du kaste wilaaya nag du ne mooy ne wàlli yu amatut waaye yegg na ci wilaaya foo xamante ne kenn du fa yeggaat ci gannaawam bal sax kenn xamut kun hu maqaam boobu noonu te bàyyi moo ko waxoon min baadi da min baadi da mashrabun li cheikhi munkatimun an kulli ruslin wa amlaaki samaawaati siwa nabiyin lahu l akwaanu qad xuliqat fa daaka yaarifuhu wa kulla saaati ku dul yonent bi salallahu alayhi wa sallam rek yàlla ir na la maqaama boobu mu tudd maqaama bi sultaan al wilayati baabul lil wilayati miftaaxul wilayati li daaka hintu loolu moo tax man ma jeex tàkk ci bëgg ko ba pare nag li ma ci amee mooy taataadu nii zafaraatun kulla awqaati heure bu nekk fiir yu métti ngay dégg fiir yu métti fiir yu métti ndax mbëggeel bi te dana wax ci ay woyam lu bëri luy màndarga mbëggeel bi jooyi intasal kabdiima allati kaabadatu min garaami yufdika xaali muqiimu waddana wassuhaadu walgarbu ashaadi udulan faxkum fa anta alxakim boo laajee sama sama res wi lu mu jànkuwante ci mbëggeel Cheikh Tidiane sama xaala moo lay tontu yow res bi ngay laaj waaye sama xaala moo lay tontu xaala bi nu lay tontee mooy maa ngi songoñ ngir bëgg Cheikh Tidiane maa ngi ñàkk nelaw di foog ngir bëgg Cheikh Tidiane mu ne sama bàgg ronxa ñi nag kenn xamul nu mu toll di sotti rek ashhaadi udulan ñun ñooy sama seede waaye ay seede yu mandoo ngi noonu ayaxsabu sabu anna alxubba munkatimun maa bayna munsajimin minhu wa muttarimi lawla alhawa lam turiq daman ala talali wala ariqta li dicri albaari walalami fa kayfa tunkiru xubban baadama shahidat bihi alayka udulu aldamci walsaqami wa asbata alwajdu xabtay abratan wadanan misla albahaari ala xaddayka walanami li mu wax ne moom moo seede mbëggeele mi bu sayri moom la waxoon bu yàgg bu taxutoon sa ronkañ yi nga xamante ni def naa ay rëdd rëdd bu taxutoon sa ñàkk nelaw yi bu taxutoon lii bu taxutoon lii kenn kon bàyyi bu waxee ci mbëggeelam Cheikh Tidiane wax na la li nga xam ne moo ko wane ñàkk nelaw bi te yàgg na ci inni sahirtu bi shawqil xatmi ahmada man maa anjabat mithluhu xiidun wa abkaaru baada annabiyina wa sahbi alkiraami fama jaadat bi mislika azmaanun wa asaaru li mu wax mooy maa ngi nii foog ngir cofeel bi ma am ci Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane mi nga xamante ni ku mel ni moom jongu ma musu koo jur waaye nag baada annabiyina wa sahbi alkiraami adaban maa shariati ndax wax na fale maa baada ruslin wa sahbin misla mirqaati cheikh tijaaniyi maxtuumi alwilayaati bilxaybi qad faaza aqtaabun bi turqihimu min dal humaami fa yuti ahla faydaati bu saxaaba yi rombee yenentu yi romb mu ne amul jong ma bu jur ku mel ni cheikh tijaani bàyyi moom bàyyi moom moom bu ko neexee wax loolu te loolu la war a wax kon mbëggeelam bi moom moo koy waxal boppam nga gis heure bu nekk xol bi lay laal xol bi lay laal ndax widaadul qutubi adnaani wa afnaani wa abqaani ويامي في أزماني وحيراني وهيماني فعيني عين محبوبي ومأكولي ومشروبي وداد الختم مصحوبي بأسفاري وأوطاني li ma feebarloo lan la mbëggeel Cheikh Tijaan la jeexloo ma tàkk ndax wadan abdu faanin mbëggeel boobu nag bii rek jamono lay daw amul heure boo xamante ne dafay taxaw ma dem ba nga xamante ni fa ayni aynu mahbubi sama jëmm mooy jëmmi ki ma bëgg qad ahbabtuhu xatta araniya kuntuhu ndax wa huwa almahbubu alladi xaaza achaara fuaadi wal ishqu daaun qadimu maxaqat daatu cheikhi daati wa awsaafu lahu awsaaf dalika alxabibu mata afnaytu fihi wa daaka amri almaruumu ma koo bëgg ki ma bëgg koog la moo jël sama xol lépp mooy te mbëggeel bi ma am ci moom dafa yàgg lool léegi natt ko ak li ma waxoon ne inna nii qabla albaraaya xubbuhu shuxlul janaani oh. mu ñëwaat fii ne wala ishqu daa un qadimu mu demaat ci Cheikh Tidiane ne la wa wallahi ma fi lqalbi xadun li gayrihi fala mandarun yujza siwa cheikhi ahmada feneen mu waxaat la ci yenent bi ne wa wallahi ma fi lqalbi xadun li gayrihi fa gayru rasulillahi laysa li taalama da ngay jàpp ne dafa wax lii wax lii ñaari waxi uteewul waaye boo ko toppee dana la wax ne taraahu ida ma jitahu mutaxaqiqan bi awsaafi sidqin sayidan nicma sayida fa qultu lahu kullu rijali xafadtahum mata sirta xatma alxatmi malkan musawada fa haamatuhum min taxti naalika faxtabit walaw la tuqaa yaa cheikhu xiltuka ahmada kon bul tàqali bul tàqali bul tàqali kon bu waxee ne mbëggeel bi li ko feebarloo mbëggeel bi la li ko sonal mbëggeel bi la dem naa ba nekk jëmmi ki ma bëgg ndax maxaqat daatu cheikhi daati jëmmi cheikh Tidiane dafa dem ba nga xamante ne dafa effacé sama jëmm ay meloom ñëw effacé samay meloom damaa mujj ñàkk amatuma te saa yu ma demee ba jeex ci cheikh Tidiane takk tàkk tàkk ba gisatuma sama am am mu ne loolu mooy nekk li nga xamante ne loolu laa doon sàkk te mbëggeel bi moom mooy continuer di ko leeral fa ibrahimukum hada muhibun minka qad aada ala ahdin lakum laada wa yarju sabta aqraani ala mithaqika almathwa ala mathwakum almawa fa anta algaayatu alquswa li naim bal kada daani sa ibrahim mii daf laa bëgg te ci yow lay musloo lépp loo xamante ne mun na koo lor wéeru ci yow nag ci kóllëre boo xamante ne du fecceeku mukk te mu demaat ci yonent bi ne ko laka llaahu xasida bi ko waxee sànq ala al ahdi wal mithaaqi umri sabqa aqraani li ma ci bëggee nag mbëggeel boobu mooy raw maas gi yëpp laa ilaha illa allah loolu kenn du ko waxati sax ala mithaqika al mawa ala maswaakum al mawa fa anta al gaayatu al quswa li naim bal kada daani hmm. ñu sori ñëpp yow lañ doon wër ñu jege ñëpp yow lañ doon wër ndax yaa leen tëbbu buñ ko xamee ak buñ ko xamut kon ngay gis ne bàyyi mbëggeel boobu moom moo koy wax heure bu nekk boo demee ci xas bi bi lu mu wax qalbi lahu wa marami wa qaala bi rabbi fadarik abaydan saraat xol bi moo ko moom càkkutee fi it moom la rabbi fadarik abaydan suratan duna tawaay kon saa yi tuddee xol bi rek nga gis ne Cheikh Tidiane la koy askanale bihi mata hada alqalbu shawqan فليتني ألاقيه هل لي ذاك من لي بذا اللقيا سل القلب من شوخ الختام عن الأولى عشقت قبيلا سل سعادة وسل أروى فشيخي فوق العارفين ولا ثنيا سواء علينا من يموت ومن يحيا liñ ci wax mooy bihi maata hadha al qalb xol bi daf koo bëgg ba mujj dee ngir mbëggeel googu ngir ak tarak cofeel walaytani ulaaqi ak yàllantoon ma dajak moom man lii bi dal luqya ku yombal dajeegoo xol bi fàtte na keneen ku moom ñi mu bëggoon arwa bàyyi bëggutoon benn arwa waaye yooyu yëpp ay kii la man lii bi dal luqya kon mbëggeel gi moom moo koy tudd balaa ñuy wax lan mooy màndargaay mbëggeel gi te li wax mooy xubbu cheikh tijaani xarraqa qalbi فيه عمري دوما فيه عمري للشيخ دوما حباه صاحي إني سكران خمر هواه عاذل الحب فيه هم سفهاء إنني مغرق ببحر حبيبي خرقت قلبي البرى والسماء قتل النفس عشق أحمد سيدي عشق أحمد شيخي ومرادي بعد الفناء بقاء نيل عرفان ذاتكم بجيخ ndax mbëggeel bi ci la aj lim bëgg bëggam yépp lii lakk xol bi mbëggeel Cheikh Tijaan te da ko doon bébét laytahu xarraqa qalbi xubbuhu duna tawaani la doon wax ak yàllante woon Cheikh Tijaan lakk xol bi ngir ak mbëggeel fii nag mu ñëw di la ko saxal xubbu Cheikh Tijaani xarraqa qalbi gaañi nag yéen ñi may yedd inni sakraanu xamri hawaahu san sàngara mbëggeelu Cheikh Tijaan ci laa naan ba mandi maa ngi wax ñi may yedd ci mbëggeel googu ne leen ñoom ñëpp ay dof lañ yaa laa imi fi l hawa al udri maadiratan minni ilayka walaw ansafta lam talumi adadka xaaliya la sirri bi mustatirin an lwushati wala daai bi munxasin maxatatin nusxan waaye nag lakin lastu asmaahu inna almuhiba an aluddaari fi samami ñi bëgg moom dañuy tax kenn mënu leen a wax lu dégg waaye bu ñu lakkee lakkaat da nga xam ne mbëggeel du yëfu xale safara la de xale moo koy foxee waaye mag ñi rek lay lakk saax inni sakraanul xamri hawaa wa aadilul xubbi fii hum sufahaa lu xew nag bàyyi ma ne inna nii mugraqun bi baxri xabibi géeju Cheikh Tidiane bi te géeju Cheikh Tidiane mooy géeju wilaaya nuur naa foofu nuur naa ci géeju mbëggeelam nuur naa ci géeju mbëggeelu Cheikh Tidiane araa xubba cheikhi ahmad alxatma qaatili wa laysa siwaahu fi lfuaadi ah بزائلي فكبدي بحر بحب الشيخ حرى وأضلعي فصرت سفيها دائما غير عاقل سكرت بخمر الشوق دون تحرج ينال بشوق الشيخ سول لسائل فكم, فكم طالما نال المريد بشوقه نفائس علم وارتقاء المنازل أرى غير حب الشيخ عارا مشنعا أرى عاذلي في حبه غير عاذل gis naa ne li may rey man Cheikh Ibrahim mooy mbëggeel Cheikh Tijaan waaye rey boobu mooy dëgg-dëgg dundal li Seyd Omar jàngoon sànq dalaalum bi daatillaahi aynu hidayatin wa iyaaka wa naqdal muaddi ila albasi walaysa hawaahu fi lfuaadi bi zaili mbëggeelam boobu munta denc ci xol bi mukk fa kibdi bi xubbi cheikh xarra wa adwaay cër yi sama sama wàll yi sama res yi lépp li ko tàngal mooy mbëgg Cheikh Tidiane wa surtout safihan daiman geyra aqil danga mujj mel ni ku dof rek ndax ñi bëgg ñëpp maj noonu lay laa mi ngi fi dañuy dem ba xaal bi ñuy dund ñoom dafa neex ak ñoom waaye ñeneen ñu dof lañ koy jàppee te fekk na ñoom loolu mooy seen bànneex xam nga maj noonu ma gëlëm bi tar bu mu taroon moo ko war mu gis xaju laylaa bi rek topp ci gannaaw di daw romb ñuy julli rek gars ñëw julli seulement rek na ko yow maj noonu yow yaa ngi fekk ñuy julli ngay jaar suñ kanam mu ne ah kon da ngeen doon julli man dama gisee xaju laylaa bi gisaatuma leneen bu ngeen gisoon yàlla du ngeen gisaat leneen loolu waxee aarif dëgg la bàyyi kon Cheikh Tijaan rek la doon gis mu ne gis naa ne bëgg Cheikh Tijaan wa bi yàgg naa amee ci mbëggeelam ay xeetu xam-xam yu foor ak éeg ay éeguwaay yoo xamante ne lépp mi ngi koy daggee ci sababu mbëggeel bi nga xamante ne mi ngi koy am ci sëriñam kon nag bàyyi mbëggeelam ci Cheikh Tidiane loolu leer ndax daf ko wax ba sonn waaye dafa def yu bëri yu bari yu bari yu waaye nag moom dafa bëgg Cheikh bu njëkk mooy tagg yi koy tagg tagg yi muy tagg Cheikh Tidiane mandarga la ci mandargaay mbëggeelam lu mu wax fa madxu cheikh awraadi wa ahzaabi wa idaadi wa sayfi bayna abdaadi fa huwa ruuxi wa rayxaan tagg bi ñi may tagg Cheikh mooy samay awraad yi may wurdu ndax ba loolu la wax a inna kibaara annaasi billeyli shuxluhum ركوع وأوراد ترى الكل أخلصا وذا العبد طول الليل يسهر منشدا قفا نبكي أو زيرا لله ترقصا وذلك داء أصله حب أحمد فلست حق الحب بالله مخلصا gaañ ñi bu ñuy julli man benn julli sama julli bi mooy toog du ne deful farata mi de gaañu màgg ñi mu ne dañuy fanaan di rukoo ak julli julli julli man yoon bu gaaw bi laa jaar mooy tagg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu mun a taxaw ne tawaytu tawaytu tawaytu moo tax mbëggeel bi mooy samay awraat mooy sama ahzaab bi may jàng gars yi bu ñu jàppee xisbu xisbu xisbu yooyu nga xamante ne ñoom Seydou Omar ñoo ko gën a xam xisbu naa xisbu nangam man maa ngi tagg Cheikh Tidiane gars ñi bu ñuy ñëw di xeex lenn rek laa leen xadul pour xeex ñoom mooy tagg Cheikh Tidiane mu ne ci tagg Cheikh Tidiane ci laa amee tàllalu boo xamante ne tàllalu bu tee la boo demee ci sufiyanke xam li ñuy wax bastu li ñuy wax xabdu te bàyyi boo demee ci ko konaakiri da nga ko gis mu tudd ko lu bëri wal xabdu aadali hunaka ayda wal xabdu wal xabdu rawatina ci konaakiri dëkk ñoom maaxi wala Mali waaw mu ne dëgg dëgg tagg Cheikh maa ngi gën ci yàlla ne jihaad la walla sax taxaw la ci barab boo xamante ni fa ngay waajee sa ci tagg yi ngay tagg Cheikh Tidiane mu ne ci la ñuy yaakaaree jokkoo ak Cheikh Tidiane mu ne sawaruma woon njëkk njëkk de waaye tey boo ma commencé tagg tagg Cheikh Tidiane laa am nachaat boo xamante ne sawar tànge benn xamante boo xamante kenn xamul nu mu ndax tagg xeet la ci xeeti jokkoo te man ki may jokkoo muy Cheikh Tidiane yoon la pour yeggale ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa anta baabullahi ayumri in waafaahu min gayrika laa yadxulu kon tagg yooyu mooy li nga xamante ne moo koy dundal te heure bu nekk moo wax ne man tagg yi may tagg Cheikh mooy def nangam ak nangam ci man tagg yi may tagg Cheikh mooy def nangam ak nangam ci man ba na sax banaan mi ngi dégg haatif heure bu nekk mi nankaan jugal nga tagg Cheikh Tidiane ndax yaayee loolu ugarridu bil amdaaxi dahri wa arqusu li tazini madxi cheikhi chaariya yarqusu والتملل أخلاق الإمام لمن ثنى محاسنه فالمدح للشيخ يخرص يرخص وتسمع أذني هاتفا كل برهة ألا فامدح المختومة أنت المخصص أبو الفيض والأنوار نجل محمد وذا ولد المختار نعم الممحص من أرب nekk danga may fekk maa ngi wéy ci tagg yi nga xamante ne maa ngi koy tagg Cheikh Tidiane moo tax zikarkat yi bu ñu ñëwoon fekk bàyyi daajalu leen daaj yi xawma nu ñuy def ba daaj ko ndax daaj yi borom xam-xam rek ko mën a daaj madxu cheikhi awraadi wa ahzabi wa idaadi wa sayfi bayna addaadi fa ruuxi wa rayxaani lii kan moo ko mën bu ko bàyyi defutoon إن ختم الأنبياء فاق أرسال الأنبياء بمجح nga gis ne kii dëgg dëgg dafa matee lim doon hmm. mu ne maa ngi kontaan ci loolu ndax ci tagg Cheikh yi ci rafetal ay taggam samay woy damay gis ne dañuy fecc ndax dañuy kontaan woy ci boobam ñooy kontaan ndax Cheikh Tidiane laa leen taggee ba pare jikko Cheikh Tidiane yi képp ku jug pour tagg Cheikh yi jikko yi ñoo lay wax taar taar yu nekk ci moom pour nga dugal ko te mu ne woy saa yu may woy bu dee Cheikh Tidiane lay woy ci ngay gisee ne woy fan ma taxu yar xusu dafay yomb lool da ngay laal rek mu ñëw moo tax Oustaz Baram Diop mu ne am na ko ko waxoon ne ko sa sëriñ bi xanaa woyee mi ci poche bi la nekk mu ne ko gën naa jege lool <laughs> te bàyyi moo ko waxal boppam إذا ذكر المختار حنت يراعتي لتزيين مدح دون أن أعمل الفكرة gars yi bu ñu tuddee Yonent bi du ma soxla sax di toog di xalaat nga xam ne am na soxla yoo xam ne sama genre gi ñaari fan la ñuy toog pour rabu benn bayt moom nekkul ci yooyu birtijaali rek la lay wax birtijaali aqulu birtijaali gaaw lool te doo ci mën a génnee benn xata mu ne heure bu nekk sama nopp baa ngi dégg xaatif mu naan man taggal taggal Cheikh Tidiane yow yaa yelloo tagg ko yow yow lañ jagleel loolu yow lañ jag jagleel loolu te mu demaat ci yenentu bi ne euh, di wax ne sallallahu alayhi wa sallam tagg yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam ne moom loolu la jagoo ci xasida saba jabalay nomaana billaahi xallasina si man salaamin dal aqiqi fa yaxlusi wax na ci biir ne tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy taxasusam summa amdaxu wa waxidu rabbi summa ahwa muhammadan wa usni ala alhaadi wa fihi taxasusi araani ara alhaadi wa laysa siwaauhu wa kam thamma min sirrin masuunin muxassasi mu waxaat ko ci Cheikh Tidiane moo tax ma ne la bul tàqale di ma wax ne taggal Cheikh Tidiane ndax yow yaa yelloo lool kon tagg yim tagg Cheikh Tidiane di tudd taar taaram yi di tudd li nekk ci moom ci ay kawe yooyu yëpp ay màndarga la di wax xaqiqaam kii mooy kan kii mooy kan haaji fi lqalbi ishtiyaaqun qadimu lilladi alaahu aljalilu alqadimu lilladi faada fayduhu li qutubin taalama faaza minhu sabun qadimu lilmudiru saaqi kuusa fuyudaati almustafa almustafa bihi wazzaimu waaxidu alxaatamayni bihi qad xatama allahu kulla turqi irsun qadimu kada kada kada di wax kii mooy nangam kii mooy xaatim ngir feeñal baax baax yi nga xamante ne moo nekk ci Cheikh Tidiane ndax noonu la ñuy taggee booy nooy taggee nit mooy da ngay wax yi baax ci moom te Cheikh Tidiane lépp ma baax qad tabadda al qutbu fardan maa lahu fi lkawni saani wa lahu qablu usulun fi duraa izzi tadaani fa sharifun min sharifin kulla aanin wa zamaani xashada al ilma sagiran وترقى غير واني صار كهفا للبرايا موصلا أهل تداني كل فحل صار نجلا من تهام أو يمان كل سر في البرايا مده سر التجاني كم لشيخي من كمال ومقامات حسان كم, كم له في الغيب سر مالئ كل الأواني كم له من ساريات دائمات الهطلان كم أرى من مشكل قد فات أرباب المعاني من أحاديث وآيات وألغاز متان فغدت مثل رياض حين تجلى للعيان الشيخ تجاني فينا di kenn fardan maa lahu fi lkawni thani amul ñaareel ci lu mu nekk ci maqaamam bi wa lahu qablu usulun fi duaaizi tadaani askanu nag ci askanu wu mag mu jugee ci yonentu yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne fa sharifun min sharifin kulla aanin wa zamani ndax jàngale woon nañu ko ci euh, annuru rabbani wax ni ahmadun asluhu muhammadu faxra summa muxtaaru ahmadun mita summa min baadihim muhammadu faxrun qasurat an idrakihi al udama ba mu jeex banaan najlu abi talib amri idal qawmuhum shurafa wa xaqaqa nisbata al humam ilayhi xayru xalqin fa yasbatu al intimaa kon yóbbu na ko yóbbu ko ba ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu mën a dégg li mu wax ne fa sharifun min sharifin kulla aanin wa zamani xachada al ilma sagira mbooleemi xam-xam ba muy nekk tuut tànk la ko dajale aalimun معقول العلوم ومنقولا ويفتي في قلبه الأضواء شاغلا نفسه بطاعة مولى ناشطا في العبادة الأعضاء dajale mbooleem xam-xam yi yi ñuy jàng ba xam yi nga xamante ne xelal ci yóbbu lépp معقول ak manqul lépp la dajale te fekk na ndaw la xasida ilma saxira ba pare nag gën a dog gën a éeg comme li bu sori waxoon ci sëriñam qad naa la gaayata maa yaruumu almuntahi min rabbihi wa lahu ijtihaadul mubtadi fi gars yi jeexale moom fa la commencé ba pare boo ko fekkee ni muy góorgóorloo da ngay jàpp ne tey la commencé di dem te amul benn euh, tawaani benn nakal saara kafan lil baraaya muusilan ahla tadaani nekk wéeruwaay gaa ñëpp gaa ñëpp mu nekk seen wéeruwaay kullu faxlin saara najdan min tihaamin aw yamaani ñoom ñëpp mooy seen bàyyi ndax moo leen tëb kullu sirrin fil baraaya maddahu sirru tijaani dañuy wax ne bàyyi toog na jamono boo xam ne dafa jàng téere boo xamante ni dafay ŋàññi Cheikh Tidiane wala lu ko jege nit ñëw ne ko ah sëñ Ousmane Ndiaye am na téere bi muy jàng diw diw moo ko taale bàyyi leen kullu sirrin fil baraaya maddahu sirru tijaani ñoom ñëpp ci laa mi Cheikh Tiyaan waaye xoolal mu ne xoolal sama sëriñ ni am ci mat ni am ci ay maqaama yu kawe yoo xamante ni làmmiñ mënu koo tudd naka la am ci ay niir yoo xamante ni bu nekk mu nandal nit ñi bañ bañ màndi ñaata yoon lañ fi gis xadiis bu lëj ba nga xamante ne borom xam-xam yi firi ko tëna leen aaya alquran boo xamante ni maanaam bi feeñu ci borom xam-xam yu bëri bu bu ko Cheikh Tidiane laalee day mel ni faqadat misla riyadin xina tujaalil lool na tax ndax maanaam bi mu ngi koy door a feeñal moo tax mu wax ne min kalaami cheikh amri taltaqi sihral bayaani ci waxi cheikh Tidiane ngay fekk nag dëgg-dëgg nga xam ne waa bayaan ñuy jàngale bayaan ak badi ak balaaga ak xeetam mënuñ cheikh Tidiane mën walahu sawqu kalaami faajabu li til mabaani bu bu ràbbalee li muy ràbbal moom cheikh Tidiane ba wax dëgg-dëgg da yéemu nit naka la mun a ràbbalee wax yu taaroo moo tax Baye dafa dem dem dem dem wax ci mbëggeel bi wax ci tagg ko Cheikh Tidiane mooy kan benn la sax man lottu naa ngir loolu innama li min funuuni wa qawaafin wa mabaani wa qilaamin wa turuusin wa badiicin wa bayaanin wa tafaaciili carubin fi tasaarifi alawaani ma ataa micchaara ushri ushri fiihi dahran wa awaani bu ma jeexaloon sama jamono yëpp li ma am ci ay xaafiya li ñuy bëri bëri ci ay baxru lu ñuy bëri bëri tafail arudi failatun mustafilatun failatun yooyu yëpp lu gën a tuuti ci Cheikh Tidiane lu ko indi kon li muy wax rek mooy utilu lmadha aw uqsir fa darka alwasfi la aqdir wala michara ushri lbar walaw afnaytu azmani bu ma jeexaloon sama jamono yëpp du ma ci mën a indi lu gën a tuuti comme ñun tamit bu ñu jeexaloon suñu jamono yëpp duñ mën a indi lu gën a tuuti ci mbëggeel Baay ak Cheikh Tidiane moo tax day tourné rek ne samay woy am ngeen teraanga ndax da ngeen a mujj di mel a Cheikh Tidiane lakkal xanaa chaar yi ama sirta wasfal xaatimil maxtumi sir war fu la doxal di jaayu nu mu la neexee waaye nag fexeel ba àgg ci Cheikh Tidiane xata tuwaafi cheikhana saafixan wa aaniqan alqi l asa wadxula wa qul lahu barhamu qad azzahu minka alwisaalu aw silan aw sila waaye nag bu mu tere nga dox ba ci Cheikh Tidiane wax ko ne ko Barhama de bëgg naa ñëw waaye ñëw bi jafe na ko lool te bëgg naa ñëw te loolu tamit ba tey ci màndarga mbëggeel bi la mooy heure bu nekk muy am nammeel pour egg ci yéen ci ci ci ci ci Mawlana Cheikh Tidiane wa xawilan niya amwalan tuwassilu ni li xadrati cheikh duna dofi allahu lahu alal gu bari ndax ma gaaw yegg ci Cheikh Tidiane fii nga dégg mi ngi naan Cheikh Tidiane radiallahu anhu fa man lii bi daaka man lii bi dal luqya naka laay def ba am daje gi shadda shawqi wa siyaaqi xanaa nag cheikh xanaa yaa cheikhu talaaqi daje bi jot na nga yaakaar ne bu demee ba àgg ci bërëb bi cheikh Tidiane mbëggeel gi dana giif déedéet ba mu demee ba àgg foofu lu mu wax laqad aadani ishimtu daara miraayati amaai wa tahyaami rijaali limaayati حبيبي أبي, أبي إسحاق أبي العباس من عم فيضه أبي الفيض والأنوار عين الولاية alayka salaamun min muhibbin mutayyamin wa min sahbihi wal kullu taxta al inaayati ñëw naa dox dox dox dox ba àgg daaru miraaya yaakaar ne mbëggee gi dafay jeex nekk mbëggee bi tey la tey la nar a gën a yokk ma gën a màndi gën a gërëm ngir Cheikh Tidiane mi nga xamante ne mooy aynul wilaayati mooy nangam ak nangam waaye nag ànd ak loolu lépp maa ngi lay nuyu nuyu koo xamante ni sa mbëggeel daf koo jaamloo ba tey ci mandargaay mbëggeel bi mooy wirdu Cheikh Tidiane bi mu jël téye ko te jëlee ko ci baayam bi illikum كنت مسيكا بلا صرم فلا أكون لعمري ذا خسارات عن الإمام الذي قد حاز إرثكم غوث الزمان بحشد كل خيرات ذاك الذي قد حوى ما كان مفترقا في غيره ذاك عمري ذو فتوحات jàpp ci ba mu dëgër mooy ci di wax wirdu yu mooy lan ndax fu nekk lahu wirdun min alhaadi samaa an kulli awraadi li ashyaaxin wa afraadi fa hada alwirdu agnaani doyloo bu mu doyloo wérdu bi di ko tagg fu nekk di wane ngëneelam fu nekk loolu mandarga la ci bëgg yi nga xamante ne bëgg na ko Cheikh Tidiane ndax wax na feneen ne fa wirdu bi wirdi imaami taaba nahliya wal allu fa lil wirdi fadlun laa yuqaasu bihi fadlu walimla wa taaha alhaashimiyu imaamuhu wa rakkabahu tarkiiba man qawluhu alfaslu ci murid Cheikh Tidiane radiyallahu anhu naan naanaat laa ko mën a waxee pour mu gaaw ndax ñoom songaleeg ñoom ñooy yëpp dafa gudd nan naanaat ci la ma yombee ndax wirdu la boo xamante ne am na ngëneel boo xamante ne ngëneel mënu koo féetee kaw lu tax du tax du am lool ndax wirdu woo ki ko tarkib ki ko toggale mooy yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam walahu tartibu awraadin min al jaddi xisaani la waxoon walahu tartibu awraadin min al jaddi xisaani kon loolu mandarga la ci mbëggeel bi ni mu fonkee wirdu wi ni mu ko jàppee wane na amul wirdu bu tolloog moom te loolu mooy xaqiiqa ba pare képp ku laal wirdu wi rek bay song la ku laal wirdu wi rek mu song la xeex ak yow ba wan la ne wirdu bi mooy dëgg wax na طريقكم محض إحسان ومكرمة من الرسول الذي يعطي المكانات يا من يظل جحودا بالطريقة أبشر بالعذاب كذا أهل الشقاوات لنقص دنياك مع نيل الرياسة قد تدعو دعاوى كذوب للجهالات أنصبت شيصك مكرا فانجدلت به نكرا تعارض من يعطي الفتوحات فصرت في حجب لا خير في حجب إذ المحجب محجوب لحظات أهل الشقاوة فلتعشوا لفرقته أهل السعادة فازوا بالفريدات مجاورين رسول الله waaye fii xurafin min taxtiha xurafun min duni miriyaati sa yoon wi yoon la boo xamante ne dafa sell ak ngëneel jugee ci yenentu bi nga xamante ni ku am daraja ak lu mu kawe kawe rek moo la may yow mi nga xam ne looy def lépp mooy di xas wirdu bi maa ngi lay dëggalee mbugal mu tar wàññeeku ko àddina wàññee àddina mooy xutaam àddina nga topp te dafay jeex mataaw dunia xalil ak ngir am càng moo tax nga taxaw ngir ne wirdu Cheikh Tidiane baaxul sa wirdu bi istighfar la laa ilaha illa allah salaatu ala nabi wa mal wirdu illa astaghfiru summa halilu wa sallu ala almuxtaari waral majamia li eh, xasan abu bakr daymaani waxoon aw kufrun billahi an qaala abdu muxlisan laa ilaha illa allah aw an istaghfara ilaha yuraji minhu gufrana ma janathu yadahu in yakun daa ya ayuha annaasu kufran falzamu lkufra taxmadu uqbahu fekkee julli ci yonent bi wax laa ilaha illa allah eh, wax istighfar loolu mooy weddi ñëpp nañ weddi ba nga weddee wi bi nag te wi bi dëgg la li nga mujj am rek mooy da ngaa mujj nekk ci ay kiiraay te kiiraay yooyu benn yiw nekku ci ndax ku am kiiraay yooyu xadra bii di xadra Cheikh Tidiane yàlla daf la koy kiir mais nag ahla shaqawati faltaashu li furqati nekk leen seen lëndëm googu yàlla tànnuma dara bugguma dara li nga tànn rek lu laa bëgg te waxoon nañu wal aarifu man taraka muraadaatihi li muraadil xaqi wa innama almuridu laa yuridu wa rabbuna alfaailu walmuridu la waxoon waaye mu ne waxta sabaaxi qum waqta sabaaxi qumtu lil awaalimi waqta sabaaxi udtu lil awaalimi wa udtu linnaasi qiyaama naaimi lam yabqa lil maradi aynun aw athar subhaana man yabcasu fi lamxil basar waaye nag ba ma xëyee rek damaa dellu si waat dellu si boo xamante ne yàlla daal moo mën a moo moo mën a roofaat ni du rooxu mu mel ni sax feebar nekkutoon sama yaram bi wax benn wax bu gàtt euh, ci baaba makaranta ba mu ko rombee rek mu ne shaxsun ataani min rijalil xaybi قد عادني بدعوة من قلبي يرحمك الإله بالعافية قد قد قالها في شفقة راقية خطر لي بأن ذاك خضر أغناني الختم تجان الوزر waaye nag ci feebar bi lu muy tartar benn waaye moo ñëw rek fekk ma ma toog rek mu pikiir ma rek ne ma yàlla na la yàlla yërëm yàlla nga taneeg jàmm seet ma romb mu ne sama xel nag dafa dem ci sens yi ne kii daal dafa mel ni xadir la waaye man Cheikh Tidiane doy na ma ba tey loolu ci màndarga mbëggeel bi la bokk doylu bi nga xamante ne doyloo ko sëriñam namm yi muy namm barabi sëriñam topp yi mu topp yaa Tidiane tagg yi mu ko tagg loolu lépp buñ ci doon jaar jotaay bi du jeex waaye buntu la boo xamante ni gannaaw loolu tafata ataayib nufus mi ngi fi euh, taybul anfas mi ngi fi ku nekk mu ngaa gën a xuus xuus xuus ndax ñun du dañoo ñëw fii wax lu kenn xamut dañoo ñëw wax pour fàttali rek ndax ñun ñëpp ni ma ko waxee yii ñëpp noonu ngeen ko xamee wala lu ko gën a rafet wala lu ko gën a màgg lépp loo ci mën a xamee rek mooy ne mbëggeel boobu bàyyi amoon ci Cheikh Tidiane mbëggeel bu dëgg moo tax ku fi mënti nekk ak loo mënti doon rek bàyyi bu la wéyee rek xamal ne Cheikh Tidiane la jëm bu la wéyee ci Cheikh Tidiane la bi qalbi qaala bi saraman ila alladi minhu anwaarun asraaru إلى الذي فاق أقطابا بوطأته ففاض منه بحور وأنهار إلى الإمام أبي العباس أحمد من ما أنجب مثله غيد وأبكار إلى الإمام أبي العباس من عن علم كنه مقام منه قد حار إلى الذي هو سلطان الولاية سبط المقفى من به ينهد الأوزار إلى الذي هو منحار بوائكه إلى الذي هو معتاق ومذكار إلى الذي هو مرفاد لشيقه إلى الذي هو من شانه منهار إذا يقول لهذا أنت في نعم كما يقول لهذا دارك النار jong moom fi nekk di jaay affaire man leen rek laa lay wax romb naa la ak sama xol ak sama xel yëpp sama zaahir ak sama baatin yëpp jëm ci Cheikh Tidiane mi nga xamante ne tëbb yi ci moom lay jugee leer yi ci moom lay jugee asraar yi ci moom lay jugee jëm ci ki nga xamante ni ñaari tànkam yëpp mi ngi ko toog ci ndoddu wàllu yàlla yëpp alal aqtaabi rijlaahu yaa lal xatmi bushraahu wa bushraa man bi zulfaahu wa man fi shawqihi ani jëm ci ki nga xamante ne mooy sultaanul wilaayati jëm ci ki nga xamante ne mooy sëtu yonent yàlla Muhammad bi nga xamante ni du dajeeg bàkkaar fu mu ko fekk rek yóbbu ko ndax yoonam bi bàyyi moo ko wax wali fi tariqi lxatmi ahmada manhaju wa amma tariqa alxayri la atanahaju tariqum biha tufa aljaraimu kulluha walijuha fi alliyina muwallaju ku ci dugg rek bàkkaar moom wan na la gannaaw ndax yaa ngi xëy di baalu yàlla yàlla loo ko mënti tooñ tamit boo koy baalu mu lay baal rek oh, comme ni ñëwee ci xadis Abu Darin bi jëm ci Cheikh Tidiane mi nga xamante ni min xaarum bawaa'ikahu ay ay ay ay gëlëmi gëlëmi gëlëmi mbéewam yépp looj rek mooy tabe bu ëpp na alladi huwa mitaaqun wa midkaaru ku mun a goreel jaam la waaye goreel bi dëgg-dëgg mooy fexe ba nga xamante ne lu dul yàlla jaamlootu la waaye jëm ci Cheikh Tidiane mi nga xamante ne mooy tuddaakoon yàlla dem ci mi nga xamante ne ñu ko bëgg bu ñëwee daf leen ni eb ba ñu doyal waaye jëm ci Cheikh Tidiane mi nga xamante ne ñu ko bañ yëpp dañuy mel ni ab tabax buy mbàbb rek dellu gannaaw rek kon mbëggeel bu bàyyi am ci Cheikh Tidiane Cheikh bu ko waxee du ko jeexal keneen ku dul man bu ko waxee du ko jeexal waaye liñ ci xam rek mooy ne li mu wax rek ne wa mahbubi ilal haadi siraatu ki ma bëgg muy Cheikh Tidiane mooy sama yoon pour jëm ci alhaadi mi nga xamante ni mooy yonentu yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa te mbëggeel bi yëpp bëgg yonent bi moo ko waral li Cheikh Tidiane doon moo ko waral waaye li Cheikh Tidiane taxawee moo ko waral li mu am ci Cheikh Tidiane mbëggeelam bi moo ko ko may ñun tamit ñu góor góorgóorlu ba yegg ci suñ sëriñ yi mbëggeel foofu ndax suñ tëbb yi mën a toll noonu ànd ak ne mbëggeel lu toll ni lu bàyyi moom kenn xamu ko moo tax mbëggeel boobu la jël teg ko ci kanam lu mu soxla yëpp ci la koy laajee aw may ma li ma soxla yow Cheikh lu tax aw tey nii maa laa yanbaghi li siwaaye lu tax fuqtu kull al ushaaq may ma loo xamante ni du yell mukk pour keneen ku man li ma waral li tax ma war a ñaan loolu mooy ne fuqtu kull al ushaaq ñi la bëgg ñëpp man raw naa leen feneen muy ñaanaat مطلبي أن أكون ساقي خمر xamrahu dënnuhu min an-na'im matlabi an akuna qutban faridan lil baraaya la ghayra hada ashim lu tax ma bëgg nga may ma loolu lépp mooy ne yow suxda kull al aqtaabi fajal muhibban faiqan lil aqraani fii ka yahim comme yow yaa raw xutbu yëpp man tamit ma raw ñii la bëgg ñëpp dama bëgg nga may ma loo xamante ne doo ko mayaat keneen ku toll ni man ba dem matlabi atfatul imami sarian wa siratun ila alhuda mustaqimu summa summa aydan xaaun wa xaaun sarian summa yaxsha gaynun wa jiimun yadumu summa nuunun min baadi nuunin wa aynun summa sinin wa baada tilika miimu summa lii fiika matlabun anta tadri wa uyunu aladaai anni tuniimu bëgg naa atfa ñeewantal bu jugee ci yow bu gaaw nag ak yoon wu jub boo xamante ne ci njub la jëm gannaaw loolu tamit soxla naa xaak xaa bàyyi firi na ko ne euh, suma aydan xaa un wa xaa un xadaratu euh, xamrul xadarati mu ne la ci jublu suma yaxsha xaylun wa jiimun xaybatun fi jamaalin mu ne la ci jublu ba mu jeex nuurul nuurul baxrul anaaniyati wa nuunuhu wa kada wa siin siin assirru saari fi jami al mawjudaati wal miim al madadu li jami al xalqi comme ni mu ko tënkee ci bindam yi nga xamante ne xam ngeen ko loolu la waaye gannaaw loolu lépp mu ne maa ngi soxla yeneen summa lii fii ka matlabun anta tadri wa uyun al adaai anni tuniim hmm. maa ngi am beneen càkkutéef mooy ne noonu yëpp damaa bëgg nga nelawloo seen bët yi walis man mooy ne nit ku ootee lu baax rek dana am ñoo xamante ne dañ jub pour noonu la ci non cesse rek rek waroo ko am lu tax te yàlla may la ko moo tax loolu moom am na moo tax benn noonu yeggul ci moom ba mbir mi yegg fii mu mosle mosle mosle ba ñun tamit ñu mosal ñu bañ mën a mosle te loolu lépp ci xéewalam la ci barkeem la am nañ ko yàlla fayal yàlla teg ñu ci defal ñu mbëggeel ci moom bu sax mbëggeel boo xamante ne ci la suñ tëggu yi di lépp lu baax loo xamante ni nit a nga koy sàkk bu ko amee mu jëriñ ko yàlla nañ ko yàlla may ci barke bàyyi ci buntam rek ci buntam rek bugguñ ko mu jëlee ci keneen ñoom waxee ne bugguma mu jugee ci keneen ñun bugguñ mu jugee ci keneen moom am nañu yàlla may doon yàlla defal ñu suñu mbooleem càkkutee lu ñu fi wax lu baax loolu xéewal yàlla la lu ñu réeree yàlla nañu ko yàlla xamal rabbi bi zaati wa sifaati fa qulna fi saa'iri l-xaalaat bit quluubana ala l-iimaani wa tawfiqna li amali l-ihsaani wa ilayna wa salamna diina addi xuquuqana wa addi bayna rabbana durriyatan mubarakatan takunu lillahi bila musharaka zid kulli man ilayna ahsana wa jaazihim an al-jazaa al-ahsana المصطفى الشفيع يوم المحشر خير الورى مقدم عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وعمما سبحان ربك رب العزة عما يصفون wa salaamun alal mursaliin alhamdulillaahi rabbil aalamiin